sa famille yow. bon di wax ni dañu fi waxon nañ ko waxon ni euh, Crépin euh, plus suspension bala mu mm-hmm. et après euh, ko convocation pour cette double confrontation face au Malawi mais faut demander à ce que mu bañ a jabar ji dafa nek ci digënté hmm waaw diko ñaanal nak digënté bobu noonu yalla nako yalla matalé sotil ko ba Crépin bébé bobu muy xaar yalla nako ko yalla yàlla jox et loolu motax ki nga xamantene mom moy Crépin jaata dotul ñew ci li nga xamantene mom moy sélection bi comme niñ ko waxé ce grand site sportif Desports.sn, moom moo depuis démb ci goudi Marceline. Mhm. dsport fessel ko depuis démb ci goudi way gis nañ aussi keneen ko xamantene euh, ñepp ñi ngi koy fessel muy Nicolas Jacobs. Mhm. Euh, Ismaïla Jacobs autant pour moi Ismaïla Jacobs gis ni euh, convoqué won nañ ko mais après dañu né que il était mënul ñëwëti répondre à la convocation hein, mhm. parce que dafa war a subir benn intervention chirurgicale waaye gis nañ également que club daf ko sélectionné pour mu jouer woon benn match donc yow naka nga jàngatee loolu Mbaye Sène bon c'est vrai que nous, démb Sénégal nous pas jaaxle ba ci sax au sein de la fédération sénégalaise de football mais nous dañoo parce que nous avons une convocation avec nga Ismaël Jacobs pour mu jouer cette double confrontation Ismaël Jacobs d'aller faire comprendre que ni et nous nañ au sein de la fédération sénégalaise de Football. Ismaël d'aller wax que nous avons leen documents il est blessé lol ñom pour nak parer à toute éventualité lol motax ñu dem wooye Abdoul Aziz Ndiaye le latéral du jahaf de Dakar. ah oui pour me remplacer ko. bi est-ce que le joueur a joué franc jeu c'est une grande interrogation parce que nak jappuma ni fédération d'une cuune cuune goo xamante ni bii nii dinañ convoquer joueur xamanteni bi ni dafa dafa dafa dafa hmm maintenant li ñu def ñom def nañ ko woo nañ Ismaël jacob comme ni ñu wooyee Ablaye Seck. Mhm. parce que ablay sek tamit dafa blessé. Mhm. maa ngi ko fi doon wax mom tamit Michael Ngor Faye moo ko waroon mhm. remplacé bu ren. ablay sek woo nañ ko dañuy ñëw na constater li nga xamanteni bi mom moy blessure bi motax ismaël jacob da fay ñëw. am na sax ñu doon ñuy naan su nekk man ma nekkon place Ismaël jacob du ma ñëw déedéet day ñëw. ndax té momi tamit est-ce que déclaré na la vérité. parce que début biñ ko classer digënté Galatasaray ak Alanya.

bulletin bi wane ni. Mhm. dafa gaañu. papier médical bi papier bi. léegi nag su ko wane club bi tey euh, fédération amul médecin bu nga xam ne tey war na wax directement ak médecin wu Galatasaray bi def benn communiqué entre ñoom ñaar pour wane ni que kii euh, dafa dafa gaañu. war lu mën a nekk mais cas bi dafa xaw a spécial. Mhm. parce que xam nga moom daf ko déclaré. Mhm. ba ñu remplacer ko ak benn joueur. remplacé nañ ak ah, Abdoul Aziz. Abdoul Aziz Ndiaye bu bu Jaraaf. ñu xëy ko gis ko mu joué mais loolu nag day teexel. Ah. la fédération ñenn ñi comme Samsidine Diatta gis n'a ben commentaire sur Facebook ñom il paraît que xamoon nañ ni dafa wara euh, am ben intervention chirurgicale dafa def opération juste après le match mhm. ñom est-ce que ñoom aussi bañu def sen communiqué bi ñoom ñu won bind lolu mo gën ñuy bind que ni dafa blessé alors que de retour ñu gis ko mun bok ci 11 partants je pense que c'est pas du respect par rapport à communiquer fédération mais c'est parce que est-ce que bëggoon nañ ci xous mais le le problème en est que d'après source yi nga xam am nañ ko au sein de la fédération moy mhm. que ni Ismaël Jacobs yónnee na bataaxal buy woné ni il est blessé. c'est ça ñom ñom lu ñu mën def rek. wax dëgg fa yalla fédération sénégalaise de football moy constaté. Mhm. mais bi ñu ni Ismaël Jacobs bokk na ci équipe bi doon jouer dem face à Alagna te ñom ñoo gagné 1 but à 0 sax. Ah mm-hmm. dañuy dañ koy waaw ko ne ko wax d'accord da nga blessé wa légui indi ni li nga xam te ne mo koy firndé mhm. légui na su ko indee amaana fédération est statuer mhm. parce que jël nañ seen ay motuwaay ba ils ont anticipé la fédération anticipé et yaakaaruma nag ni cuune lu ñu cuune goo xamante ne bii qui xam blessé na ba pare nag ñu koy ñu koy convoqué wala di wax ni dafa blessé te duñ ko jël non non non non cette fois-ci moi la grande question que je me pose moi, mhm. est-ce que le joueur a vraiment joué franc jeu c'est ça. C'est ça la grande question, Tamit. C'est bien aussi de taper sur la fédération, mais il y a aussi, jouer Tamit aussi, des fois, il y a des maladresses, donc on comprendre. Maintenant, la grande réponse d'une Koyhar, tey dinañ nous si ak suba. Mm-hmm. comme ni ñu ko comme ni ko dsport point sn defee dinañ ay informations yu par rapport à à cette cette blessure euh, fantomas ou bien cette blessure ne dit pas son nom de que